Adama glace yaa ngi génn Serigne toj na benn ndaa toj glace lii nag boo gisee day wane ni Modou xarañ loo soreetul ci bunt bi ndax na ñi koy xaar yaakaar naa ci ay waxtu Ama Baldé mu ko rawee wat war naa mat une heure de temps ndax Ama 15 fekk na ko mu dugg stade di waajal bisam waaye actuellement ni 16 heures jot na te Modou Lo génnagul ndax ci li ñu gis convocation Modou Lo 17h Ama Baldé 16h45 waaye Ama avant 16h45 fekk na ko fële ci arène nationale soo gisee départ am xam ni Pikine am nañ ci moom yaakaar xale bi génn na na mu daan génne mel na na mu daan mel moom Ama balde day saat ñu xoor fan lay commencé ak fu muy yam ana Modou Gora mu ngi naan puus leen Adama Modou Lo soreetul de ña ngay wéer bunt bi Adama Modou Lo soreetul ndaysaan soreetul Adama ndaysaan papay Petit mu ngi noonu génn ndeysaan yéeg na ci oto ba ndeysaan gis naa ndeysaan ndeysaan ndeysaan Petit Lo ngi noonu Adama Modou Lo ngi noonu di génn Adama le roi des arènes maa ngi koy séen ndeysaan Papis am na lu koy jox ndeysaan ma nga noonu di génn moom Modou Lo laa ilaha illallah Franc ngi ci kanam Modou ngi Adama ak blouson bi ma ngay tari ay am na butéel bu mu sottee ko laa ilaha barse yuuxu na léemu waat na sotti waat na ci bopp bi laa ilaha illallah ma ngay léemu ma ngay léemu moom Modou ma ngay moom Modou xarañ loo Adama Modou Lo ma ngay léemu ndeysaan supporter yi kenn mënatul téye sa bopp ndeysaan le roc des Parcelles Assainies le roi des arènes ma ngay léemu moom Modou Xarañ Lo ànd ak Serigne Ndiaye ànd ak Serigne mu Serigne Babacar Sy waaye ànd ak Papis mu Xarañ Lo ndeysaan Modou Lo wa ngi noonu laa ilaha illallah ma ngay léemu Adama xolal yaa ustaas ni mu génnee ma ngay moom yaa ustaas laa ilaha illallah ndaysaan yaa jaa ngi noonu di sotti ndox ndaysaan yaa jaa ngi di sotti ndox ndaysaan yëkkati na loxo bi nee na maa ngi ñëw nee na maa ngi ñëw dugg na ci oto bi Modou Lo dugg ci oto bi laa ilaaha illallah nee na supporters yi maa ngi dem maa ngi ñëw moom Modou Lo nee na maa ngi dem maa ngi ñëw moom Modou Lo nee na maa ngi dem maa ngi ñëw ndeysaan xale yi mën a tuddoo tee seen bopp ubbi leen mbooloo mi la ilaha illallah ndeysaan xoolal service d'ordre bi xoolal service d'ordre bi ndeysaan Modou Lo ma ngay génn fi ma seen i na ndeysaan Modou Lo ngi ci bi ndeysaan li mu def xale yi indice la mooy maa ngi dem maa ngi ñëw ndeysaan ndeysaan ma ngay génn moom Modou Lo ndeysaan le roi des arènes ma ngay dem ndeysaan Serigne Ndiaye nee na damay rendi Papis a ngi noonu ndeysaan Modou ngay génn ma ngay dem le roi des arènes ma ngay génn ma ngay dem ndeysaan Modou Lo ngay dem Adama mbooloo mi bari na mbooloo mi bari na mbooloo mi bari na fii ci Parcelles Assainies ndeysaan Modou Lo dem na ndeysaan Modou dem noonu oto baa ngi noonu xolal ful bi ndeysaan xolal ful bi Modou dem ma dem ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil Manam lépp lu Tualum ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ la jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi, li ko ci fondation élevé tabak houle, ak raax ci second œuvre bi nag ci ngeen électricité ak plomberie ETDR amno boutique